aousubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di ñëwaat fii ci seen émission bu mag bi émission attu jànkatu xasaayid di ñëw fii maa ngi say baay daam seet si sunu xarit Serigne Ahmadou Ndiaye jànkatu xasaayid moom leen ñëwoon tey seet si ko bëggee waxtaan ak moom ci xasida yi kon balaa ñoo def dara rek nañ koy jox moo yëkkati ay bayit ci xasida yi ñu doog a dugg ci wa وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم بحق الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أجابني خير باخ في خطابا كل وراء خابما لخاد اختابا أجابني خير ما تنفي خطابا كل ورا خابنا لخاد اختابا ليجب آخر ما قصد النبي إلنا فارغت والولد والأمر ما خابا بيت النسي ليس ين عوني ولي بدلي ولي يخلد من كبس قابا إلى سواي الهدى تمي بما ما هو وبي يسف إلى الدهر البابا خلاب من لم يخب بين على وجل ولا يلاخ نما الأكرام ولا البابا ينغاد لي كل ما رام الكرام منن ولا أرى خابما لخاد اختابا ينغاد لي كل ما رام الكرام منن ولا أرى خابما لخاد اختابا اللهم صل وسلم وبارك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 ak fan la njëkk a tàmbalee euh, euh, àndal ci xasida yi ak fan la jàng euh, alxuraan ak lan moo ko dugal ci xasaay bi la njëkk si ñoom itam. di yi baax yi nga leen ndokkeel sama mbokki bopp yi nga xam ne ñoom laa ci xasida yi di waa bi ci nit li sëñ Balla ak sëñ Mor ak sëñ Fallou Thiam mi nga xam ne yàlla dogal na moo tax ñu xamante ba ngeen yegg si di bokk mbokk jigéen yi ñëpp sama mag yi ku mel ni soxna Ami ak soxna Kumba ak soxna Ngone ak sama mbokki dëkkandoo ndoy ñëpp maa ngi leen di nuyu di rafetlu émission bi di santaat yàlla bu baax di gërëm Serigne Touba di ñaan ci barkeb Serigne Touba yal na jàmm xew ci Sénégal gépp barki Seexul Xaddim am nañ kontaan mbégte bu baax ci teew si gi ngeen fi teew si njàngum xasi mi dañoo judd fekk ko ci kër gi ñu nekk nga xam ni moom lañu ñu jàngiraam moom la ñu nàmpe ci lañ màggee ba toll nii ñu toll kon dat bi duñ ko mën a xam waaye liñ mën a wér ci wóor ñu mooy kër gi këru xasida la ku fi judd loolu ngay doxantoo loolu ngay raame loolu ngay wax kon fi lañ ko fekk mu cosaan ba mu yegsi ci ñun ñi ci bari ci ñii ay jànkati xasida lañ la mooy xam nañ ko. jàng njàng mi nag fi ñu ko doore gardien lañ dëkk fa lañ juddoo yara fa fa lañ jàngee alxuraan xam naa soriwul sax waaye nañ xamee ko si ne fa lañ ko xamee ba suñu borom ñu dogal ñu ñëw Tuuba yàggalee fi li ñu yàggalee ba fi ñu toll noonu rek la si ñoom xanaa tëbul tëb am na koo xam ne moom la gis mu neexoo. mu ànd moom ci xasaay bi wala da ngaa jékki-jékki rek doon jàngkat rek bët sa bopp wala am nga koo xam ne moom nga mos àndal ci xasaay bi. yàlla dogal na ci xasaay bi Serigne Mara lañ ci doon àndal ci xasaay bi ànd nañoo moom bu yàgg nag diir bu yàgg yàgg yàgg ànd nañoo moom ba yàlla dogal li dogal ci suñ jëmm ji ñu aw suñu yoon bopp waaye ku ñu xam-xam ni. sëriñ Mara lañ doon àndal ci xasaay di ba yàlla dogal ñu aw suñu yoon bopp nag. na ba tey ñu laaj sëñ Modou kan lay roy ak ban jànkat la njëkk di roy ba tey mu ñëw ci yëfi ya, boppam. sëñ Jili ñu ngi sant baax tey gërëmaat jànkat bi ñu doon roy yaakaar naa moo jëmoon sëñ Xaadim gi la moom moom njëkkoon doon roy waaye yàlla ya dogal na jamono yi nag ak yu ya, ko weesu yu roy kenn suñu yëfi bopp la jàng ba ñeneen am ci yoon bañ leen di loolu sant nañ ko suñu borom bu baax. waaw xam na ne heure lu jafe la te sa heure dafa bokk ci heure yi nga xam ne ah, ku ku ku ku dund xasaayit wala ku ku ku ku yëg xasaayit bu déggee heure bi dina xam ne heure bi du heure gone léegi ñu lay laaj heure boobu fan nga ko jëlee mooy euh, gaamu heure bi ngay jàngee ndax tey bari ñoo xam ne euh, ñu ngi jànge gaamu seen xaadum gi mais ñu ngi jànge gaamu. gàmmu suñ gàmmu suñ xaadim gi sax mooy gàmmu suñ Ablaye Seck mais seew sa gàmm dafa raar mu ngi mel ne suñ suñ Fallou Ndiaye ak gàmmam suñ xaadim Ablaye Seck ak gàmmam mais yow gàmm bi nga génn dafa dafa wuute gàmm yooyu loolu nu mu la dikkalee la wala dafa am ci kooku déggee da ngaa tëdd rek ak ak nu mu la dikkalee daal noonu lañ bëgg a xam tey. jëf suñ jëli comme ni ma la ko xawoon doon lay sant suñu borom bu baax yàlla dogal na ni ku amee nopp di dégg di gis sam xel di nàcc dara xam nga ne li ma wax mosoo koo déggee ci kenn ko dul man loolu la yàlla dogal coobare suñu borom nag fu ne lay jógee moo ma coobareel ba mën a génn foofu ba mën koo dégg ba mën a dugg ci xol loolu la suñu borom dogal mu dogal ko ci man waaye du caagin ni dama ko mas dégg ci kenn wala leneen suñu borom ma dogal rek ma ñëw ci nii ñu ne Ahmadou Ndiaye ñooy ñii loolu la yàlla dogal. loolu loolu daa gàtt maanaam heure bi nan la la dikkale xanaa jëkkoo jëkk rek xam nga nit di nga toog wayantu dara heure bi dikkal la wala nga nga nga ànd ak kenn ci biir heure am nga loolu génne la mais comme ma la ko waxee léegi biir heure bi dafa nekk gaam boo xam ne sa gaamu bopp la mu génn ci yow bokkut ak tey nga doon roy Xaadim Gay dem mujj ak nga nga nga nga falesu ne ku la dégg xam ne ci Xaadim nga yor mais da ngaa beru mais fi ma la waxee ne la yow da ngaa génne foo xam ne

yu bëree bëri xew ci yëpp yu bëree bëri génn ci ndax nit lu mu bëgg rek bu ci yàgg suñu borom dimbali ko ci loolu rek la waaye nekkul ne mos gars yi ñu ngi ni toog mosuñoo répété sax mosuñoo répété fii nag ma jékki-jékki woon jàng dara rek ñu aw ko ci noonu kon coobare suñu borom moo ci dugg rek. Hmm, ñi xam ne ab yóbbante boo xam ne dañ ma ko waxoon ma ko kon ñu seetaan sëñ Amadou Ndiaye kon ni mu ko euh, dëkk te dégg ngeen ko noonu après ñu laajal sëñ Amadou. te ko soxla woon Serigne Abdou Ndiaye di ko jàngloo ci fan ngay jaar bokk nga ci jànk bi am menacer wala yow ku la soxla ci yow lay ñëw pour wax wala am na fu muy jaar doog a egg ci waaw ku soxla Ahmadou boo ko boo ko jotee da nga mën a wax moom waaye ku jot Serigne Balla Kane ci numéro téléphone boo ko waxee da nga mën a déggoog moom Serigne Moustapha Ndiaye Ndiagne. di defar katu anse ci Daaru Xudus boo ko jotee ci téléphone am boo waxee moom dama mën a digganteeg sëñ Ahmadou loolu la. waaw bu ñu ko déggee sëñ Ahmadou Ndiaye am na ménager ñooñu mu la waxal daal boo ko soxlaa ci ñoom ngay jaar euh, sëñ Ahmadou Ndiaye ay programme fan la gën a nañ koo xam tamit ndax ñu bari loolu sant nañ suñu borom région yi Sénégal bu région buñ ci jàngul amut sant nañ suñu Tuubaa bu baax a baax. fi li ma la wax nii Kajoor ak Saalum ak Siin yëpp la jàng yëpp la ñuy jàng daanaka mën naan la biñ dalloo léegi xam nga ci dara yàggul te dalloo guñu sax dañoo pose rek fu fépp la jàng fépp la ñuy jàng. ban euh, ban dëkk nga njëkk fanaane guddi ak ba ban dat la ak ban waxtu la ndax mën nañ koo xam. lii dat ba da jàpp ma ko waaye dëkk ma jëkk fanaan ndaam loolu tudd. bala ngaa yegg Mbaba Garaas diggante Mbaba Garaas ak Touba Kane dëkkub sëñ Moustapha Ndiagne Ndiagne jàngi maamam fa laa jëkk a fanaane guddi fa ko jëkk a waaye dat ba nag jàpp ma ko waaw dat ba jàpp ma sa def nga war a xëy xëy xëy tey ñu ne la guddi gi yaa ko war a fanaane nga war koo fanaane keroog nan nga ko dundee xam nga loolu yomb. koy fanaane jékki-jékki ñu ne la yaay fanaane nii ndax dañ si dañ si dalal jànkat bu bari mu lay bu la koy nettali sax ay dalay jàpp ñu wax la loolu jot na laa dal wala defoon na defoon na la protection wala def la ko woon. loolu sant naa ci suñu borom aw ma ca benn protection leer na ñi may àndal ni ñuy jàng rek bañ demee ni ñoo war a fanaane jàngi noonu lañ jàngi bu wut set suñu borom defoon ci tawfeex yu koy koy benn muskil aw ma ci loolu dalu xel ba jàng yi jeex rek. ñu xëy ñibbisi loolu rek moo ci am waaye amuñu ci benn jafe-jafe. voilà euh, noonu la koy laaj rek noonu ma ñu koy tontu kon gaa yaa ngi nii dañ lay daal di rek nga dugg fii daal def jàngum aw bu ko defee soppe yi nga xam ne ñoo fi toog ñu bëggalante kon gaa yi defar kuréel bi rek jox suñu Amadou mu daal di ñëw ci xasida yi. القدير القبول رب القدير غفور لرب القدير غفور سكيت أمري وزن بالأزم رب القدير غفور العزيم الذنب الأزيم رب الخدير خدير غفور سكوت أموري وذنب الأزيم لا إله إلا رب الخدير غفور سكوت أموري وسند المسيح وسند الأزيم يا عبد الخليل قدير أظهر فكل مشكي عليه وأبن المنى لا إله إلا الله جاء نبي شفيع الكريم ستوت أموري وزن العظيم وزن العظيم لرب القدير قدير غفور وصلي صلاة بخير الدئام وسلم سلاما عليه يدوم بخير الدئام وسلم سلاما لمن عليه يصلي صلاة بخير الدعاء وسلم سلاما عليه يدور وسلم سلاما بغير انتهاء خير انتهاء وسلم سلاما سلاما عليه وكن لي وليا لا واخذهم فقل لي نسيرا فإني أدوها وسلم صلاة بخير دعاء خير دعاء وسلم صلاة سلام عليه وكن بي لطيفا وأبني ندم وكن لي غفورا فإني ملوى وصلي صلاة بخير انتهاء خير وسلم سلاما سلاما عليه مصطفى وكن لي على مطلبه وكل مخبر عنه فإني زوار وصلي فاتح بخير الجاه خير بأم وسلم صلاة سلاما عليه مصطفى وأبني صلاة وأبنيت خل والله ذر جلالي وسدني ألوى وأبني سلام أبنيت خل ونوير جلالي جمالي وسدني مصطفى وعبني نجاة وسدني ألم وأصرخ نارا وسدني نارا وأملي نارا وأملي دخان أبلي دخان جلالي وسدني مصطفى وأخرج أبي وسدني أولان وأبرق سهامي وفارج أولان وأغلي أبلي تخن جلال وزدني مصطفى ولا تخزيني كني مالكم لا تفدعني بكوني لا ولا تخزيني كني مالكم مالكم ولا تخزيني بكوني لا مصطفى فإني لا أسير الأوى وآسن ولكن لا إله إلا الخلوة فإني لئيم أسير الهوى أسير الهوى وآسن ولكن لا إله مصطفى وآفية أبنها وخدم كما وعلما لا أدن يستخوى وافية أبقنا لا واخدا لنا وعلما لا أدن يستخوى المصطفى وصلي صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم وسلم صلاة على المصطفى مصطفى وسلم سلاما Mustafa ku dul yow pexe mag solo man mbiram jubul seen pexe jub tuwaanu fexe ku dul yow pexe mag salaaman mbiram salaaman mbiram jum Mustafa maroon naa nga ma teenu ñu cofoon ma xiifoon nga far jox ma dàggay ngënoo danay na danay jafeen xiifoon nga joxuma daade Mustafa ma soofoon nga far def ma giiju xorom ma saf ma soofoon nga far def jeexal jox may mati sëñ Ahmadou Ndiaye nang mi neex na lool wax dëgg yàlla lii moom nee naa jotuguma ci sàkkatu bi xam naa bu rek daal di laaj sama cameraman yi ndax lii moom lu bees la maa ngi koy doog a dégg waaye nag bëtuñu wax dëgg yàlla ah, baat bi neex na nang mi sell na te dëggu na ñu ngi lay ñaanal nag li nga bëgg ci xasida yàqoom yàlla na ko yàlla ak sëñ Tuubaa defal waaw ma am lay laaj mooy sa digganteeg Cheikh Ibra ndax euh, man bi ma lay njëkk di jàpp damaa dégg ngay sikkar benn sikkar ma laajte ko ñu ne ma kii de sëñ Amadou Ndiaye moo koy sikkar bi ma jumu kër Cheikh Mbaye Diouf ma ñëw fekk la fa nga sikkar ko ak ay yoonu yoonu yoo xam ne ak ak ak ak ba ba bu ma bu bu ma toogee di dégg ba booy jàng ba ci sikkar ni ngay def ci Cheikh Ibra ma xam ne am nga cofeel mujj yàgg ma déggaat ñu ne tudd nga Cheikh Ibra Fall doom lan la la Cheikh Ibra ba tax nga nga nga mel noonu ci moom. am nañu kontaan te ci lool ci li ma laaj moom Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina xanaa moom leer na ñëpp. dëgg amul bu ko ëmbalee. li daal ñëpp ci moom man lu ko lu ko raw moo dal dama ko bëgg nga jëm Sëriñ Tuubaa ji ak jëmmam ji nga xam ni bu dee woon Sëriñ Tuubaa moom rek doy na bu Cheikh Ibra kese doy na tudde naa ko doom waaye bàyyeeku ma yu bari laa ci bëgg incha allah loolu nga wax ci sikar si it li ma koy wax bari na sikar si dama ko tàmbale waaye amaguma fu ma yem ci moom am na yeneen béyit yu xew ci moom yoo xam ni doy na waar kooku mun ma mun ma wax ci moom lu bari daal waaw ngir bëgg ak cofeel ak yeneen yoo xam ni kenn mun ko wax daal. loolu la boo xam ne daa am ku ko laaj la woon kon moom it xam naa ah, tontu bi leer na ah, ba tamit ñuy laajat xam nga jànkatu xasida boo ko waxee surtout les rejes dañ ci boole awkat yi sëñ Amadou Ndiaye nan lay àndee ak ay awkatam ndax sëñ Amadou Ndiaye li war digganteem ak awkat yi mi ngi koy def wala dafay ànd ak ñoom pour bu jàng rek xëyee mu ànd ak ñoom dem jàngi. ñoom ñii maag ñoom mën naa ne ñoom bokk ndey ak bàyyi maag ñoom jàng boolewuñu bu ñu amoon jàng ci dal bi doo xam ko jàngkat bi xana buñu génnee ci bas bi ma tok ci gawaat bi nga xamni ne jankat bi waye man nanguwuma ñu dalal ma ci bi ne dalal dalal leen fee nanguwuma loolu fuñ ñu mën di dalal benn dal lay doon man ñom ñokoy ñoo bokk buñ defé ma gis buma defé ma gis ndax addin dafo dara wóoru ci dara wóoru ci nit jëmum doyu ko ñom ci jëm doy leen dama leen di wétli ko ñu di ma wétli ko moo tax duñ mëna a xaajaloo maa le seigne la waxon ci wax ja rek moñu dal maag sama diggante ñom ñoom ñoom ñoo tax ñoo am ñaar dal maag ñom ben dal lañ gisante ma ak ñoom ndax li ñu yëgante moo tax ñi ma ak ñoom passé nañ jàng li yëgante moo tax suñ diggante. laaj la bu ma gars yi di yóbbante dama ko laaj loo ndaxte nit ki bu fekkee boo nee yaasal jalaale ñoom ñoo ñoo ñoo cay teg yaa mun taxaale seen diggante daa war di waaye ah, dafa am yu bari yu des. waaye nag euh, ku ne xam na ne yow bi ma ñëwee léegi rek ni ma gis nga def ak ñoom xam naa ne bokku ci ñooñu waaw kon ñu rafetal loolu xam ne euh, nit ki mënoo xëy xëy xëy doon jànkat balaa nga ko doon da ngay toppee waaye ñi ñuy topp tamit ñi nga xam ne ñi leen ñu topp daa am lu indi ci ñoom muy si yi rek kon nag yàlla nañu seen ci gën a boole dimbali bu baax a baax ñu laaj sa digganteek si sa jëwriñ sëriñ Mouhamadou Mara Seck moom it seen diggante lan la yow ak sax dégg naa ay mbokk ngeen. kon xasaay dong bool leen waaye tamit ñu laajaan ma ne ma ah, dafa am lu bari ah, lu am seen diggante yéen ñaar ba am am na ku ma ko yóbbante daal laaj ma ko ma ne ko nag bu ma demee man xamul lu mu doon waaye dinaa la jox ko laajee sëñ Amadou Ndiaye moom mu tontu la. sëñ Mara sama jarbaat la maay na jaayam waaye bu paasee dañ koo teg ne muy sama jëriñ ci xasida yi sëñ Tuubaa yi jarbaat ak yëpp baax na waaye dañ koo teg ne. sëñ Mara passé nañu fi dafa jaar am jaay am waaye yooyu yëpp bu sama jëw di ci xas de ànd ma kenn ci xas de ku ñu moom yaakaar naa ne ma topp si ginnaaw bëriwul ñu ko def fukki at ak ñaar yu topp boo ko toppee nit war naa xam sa jikko nga xam jikko lépp lu la waay laaj sama lu rafet pour sama sama xarit sama mbokk sama lépp noonu la demee sama diggante bi. alhamdulilah kon leer na ndax am naa lu ma xam ndax fu mu fu mu fu ma gisee fu ma gisee sama naa leen kon loolu mu ci boo mo ba war a ñaan ñaani soxna moo la koy ñaanal boo demoon ba tey nga génn si kër dara xew fa muy jàmm muy lu mën a mo moom muy ñëw taxawal fa taxawaay boobu xam na war a sëñ ji laaj nga la am solo waaye nag yàlla li mën a too mooy man jànkati xasaay yëpp laa mo yow xam nga ci dara ka ci gën a ba ci gën a gën a ci gën a ñaanal loolu la yàlla man ñëpp laa seqal jàmm amam ñoom xam loolu la yàlla

kenn jëful kenn léeg-léeg dana jël ci yitte joo xam ne amaana am nga coono yaram wala leneen loo yëg sa bopp waaye nit fóorul fóoram fooraange la te na loolu am ci loolu rek la waaye nit ñi loolu wax naan nit ñi garabam moo ci ñoom ñun ñoo fay soppi soppi. waaw saa yu defee émission ki ñu seet si faaw mu xoolal ñu ci daal di mel ni mu jàngal mais yaay Sow si laaj bu la neex ci laaj mag ñi nga jàng mu gaañ am kon mu doon si lu ko def. Azbel

Amen. سلامك ولم تيامك سعد لا إله إلا نبي جلالك سافي الأمان

Sayyida Sallallahu sallam Alal Wa kul yasin Kilal Jaya Sallallahu sallam Wa kul yasin Kilal Thank you. ji daal ni ñu ko bëggee rek noonu nga ko defee te ku dégg lii xam ni da ngay jàng neex na loolu waaye gars yi la wër lan lay aw ñëw daal la Sëriñ Tuubaa wéeru baat yi waaw li nga xam ne moom nga yéen ci xasida ñu yéen a la ko Sëriñ Tuubaa mottali yëpp ci barke Sëriñ Tuubaa xasida yi kon nag ñun rek la ñuy def mooy jox la nga sëkkal Sëriñ bi bu dee nag taxaw jàng fekk mu bañ a gàtt لا لا لا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 illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah wa la ilaha illallah la ilaha illallah ya rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur la man jaga yaram bi si rabaan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah man jaga yaram bi si rabaan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 إلا الله رسول الله لا لا وحدك يا ربي بس بيك ما فعل لا إله إلا الله رسول الله لا bay sa biig yëpp ma faal laa ilaaha illallaah ay ngay ngi leer faal ngay ma leer laa ilaaha illallaah ay may lu baax faal may lu leer faal Bye. Museum Fall borom ndigal Fall dari li la moom Basiru Fall la way maay Basiru Fall alquran la ilaha illa Basiru Fall la ilaha illa way maay Basiru Fall alquran bëgg Sëriñ Ibra Faal sa loxo ca kaw fa ay lay la rasulillah mu ni maa bëgg Sëriñ Ibra Faal sa loxo ca kaw fa ay lay la man maa bëgg Sëriñ Ibra Faal sa loxo ca kaw fa ay lay la rasulillah لا اله الا الله

yàlla xol yëpp sedd na waaw wax dëgg yàlla neex na lool lenn kay tel li mooy gàtt bi rek waaye daal sama xol sedd na te wax dëgg yàlla am nañ mbégte ndax jàkkaarloo yow dafa yow émission wax dëgg yàlla ñun ñuy toog ci sa ngi ciy gis euh, yokkute boo xam ne wax dëgg fa yàlla daanaka métti yeneen heure waaye bañ ci duggee ba léegi suñu toog ngeen ci teral li ñu defal lu ne kon émission bi bi mu tàmbalee euh, ñaar laaj bi dalal fii muy yaatu ñetti loolu di wane nag cofeel goo xam ne am naa ko ci sa jëmm bi dana ñaanal lu nga bëgg ci xasida yi yéen ko ci yàlla fi jotee ko waxee léegi rek borom xol rafet nga fu ñu la fekk da ngay kaf ak ñun ah, di wax ak ñun te bu la neexoon nga wane ne nii laa mel te du tee tamit ah, ñun li ñu war a def muy topp la ñu def waaye fu ñu la gisee fu ne rek yaay njëkk a woyofal sa bopp njëkk ñoo war nañu sax ah, man dama suuf te bu la neexoon kawe kenn dàqulaat jàng kenn ëpp la programme ñun xam baax yaa ngi jàngi bu a baax te lay ñaanal nag mu yokk ba doo amati benn temps li nga bëgg daal ci xasida yi yaa ko xam sëñ Tuubaa mën na ko te yaa ngi ko defal ci barke Serigne Touba ak xasida yi kon émission bi mi ngi a tàggoo dañ la moo ci am Serigne Touba seere na maa bett waaye kon du nii waaye nag. bu bu bu dox am jeexul. Mhm. waax sir la jeex. bu soobee sëñ Tuubaa mhm. danañ fi jaaraat ndem soxna na suñu sama xol sedd na li ko dale ci yow ak ñi ngay àndal ñëpp ñun amuñu fay waaye sëñ Tuubaa mi tax ngeen di def am na fay. Mhm. yal na leen féete fépp li ngeen yor sëñ Tuubaa may leen ci tawféex joo xam ne day koy boo fépp fu ngeen bëgg mu yegg fa mu koy seen njort maa ngi dale nuyoo nekk siyaar bi sama wàjjuru jigéen ci suuf soxna Fatou Mbaye diko ko ci sëñ Maxar mi nga xam ne jori jëwriñu kër gi di suñu lepp ak sëñ Mor mi door a yegsi ak mbolo mi toog ñi nga xamni ñoy man may mom ñii nga xam ñoy lay andal ci xass de mo bokk ak ñoom ndey bokk ak ñoom bàyyi ñuy samay lépp nag ñii ñooy samay lépp ñoo may digal ñoo may tere di ma wax bay di ma wax defal loolu la yàlla dogal sama digënté ñom ma ngi leen di ñaanal tawfeex Sëriñ Tuubaa joo xam ne fu ñu rek yàlla nañ ko gis ci barke Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa taxaw ñu yi suñ ginnaaw maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal toog ak Sëriñ Tuubaa di ñaan kenn ku ne tànk yi nga ñëwee ak yi nga delloo suñ borom defal la ko muy toog ñenn ñi ci kër gi lañ dëkk ñenn ñi di samay dëkkandoo ñeneen ñi di sama soxna yi ma ñeneen soxna day amee ak ñeneen ñeneen ñi dëkk ci kër gi ñeneen ñi dëkk ci ñee waaye ñëpp boo ñu gisee dañuy defe ni genn kër gi lañ bokk waaw dañuy defe ne ñëpp ci kër gi lañ bokk kon man awma seen fay kër yi fu ma ci neex dugg mel ni falaa dëkk te loolu dëkkin wu rafet moo ko waral kon ñoom maa ngi leen di ñaanal seen Tuuba ku ne fa nekk di fa sàkk lu baax si sa kala suñu borom boole yàlla nga fa am lu at a jamono ci kàttan sëñ Tuuba dara ji Cheikh maa ngi occasion nag ñu wax ni dama am cat sëñ Tuuba mooy may def di ko def si kër sëñ Matar Ndiaye mi nga xam ni mooy suñu waajur di suñu taw bab mom lañuy defal ma bis suñu waju ma koy defee fa mom di commencé tiant gi ngërëm bi nag ci mom diko ci dalé diko ci yamal di ñaan képp ko xamni ne dégg nga ñu wala nga dégg suñu kat yàlla lay seen jéggal ci barke suñu Tuubaa dara ci Cheikh Ibrahima bis bi samedi lay dal bii ñu le des man lañ ko yëf bu baax Cheikh Mountakha sëñ Basiru na fi yàgg amiin li ngeen liggéeyal sëriñ Tuubaa mu def ko ko njort ci suñu xol sedd na ci yéen bu baax. suñu xol it dal na. a ne sëriñ Tuubaa féete fépp. Amadou mu ne suñu xol sedd na bu baax kon tàngam émission yi wax dëgg yàlla euh, bu ñëw rek gën a neex waaye bii moom daa gën a neex xam naa gars yi dañ damaa far waaye sëñ Amadou moom damaa amul ci moom sago rek moo waral loolu kon bu ko defee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant suñu galas mi nga xam ne wax dëgg yàlla moom it buñ dee ba ñëw fii ci moom la jaar

kooku am bëgg na euh, li mu yor mu yaatal ko rawatina jànkatu xasida yi émission bii ñuy def tamit tëjaluñ kenn suñu ko incha allahu rabbil alamin ku ci bëgg rek bu ci jokkoo ak ñun dinañ ñëw defale la ko ñëw fekk si la ba ci sa ñëw defale ko comme ni nga ko bëggee ndax moom loolu la ma wax nee ma bul ci bul ci bul ci bul ci am ci xaj bul ci am sant ndax yëfi seen tubaab daa yaatu te comme yéen seen yëfa ku ci koo xam ne da nga am bis waaw wala ngay woote lu mën a doon ci wàllu diini booñ ci wooyee dinañ ko mën a taxaw li ñu bëgg mooy yéen ñëpp ngeen amoon ci ndax amoon na boobu mooy waral lu dugal rek moom ko gis mu def mooy ay produits boo duggee ngay abonné soo abonné rek insha allahu rabbil alamin bu ñu bi daal di ñëw ci sa xam ne lu ñu mën a dugalee rek dara du la ci ngi siyaare sama cameraman sama xaalis soxna Ndeye Mbaye Thiam ak seen Mbacke mi xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy président groupe di leen ñaanal ñoom it yéen nga xam ne am nañ ko ci jànkatu xasaay yi am ko ci groupe bi sëñ Tuubaa mottali yëpp ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp di leen gëm rek dox na jël ci beneen numéro beneen atu euh, jànkatu xasaay yi te ñëwoon ci maa ngi sa baay daan di ko ñaanal daana sëñ Tuubaa dundal aw fana wéral ay cëram mm-hmm. subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil